équipe yooyu ñoo ko waroon. Euh, ñuy dem nag ba ñeneen ñi ay Mamadou Lami euh, Amadou mbay Loum en 76. ñoom Babacar Makhtar Sylla ba ci Malaay euh, da Ndiaye ñu ñëpp ñëw def ay jéego télévision bi def ay jéego 72 ba léegi kon bu ñu demee ba yegg si en 2000 réseaux sociaux yi feeñ digital bi jël beneen dimension. dañ koy sant yàlla ndax loolu dafa bokk ci évolution mm-hmm. ndax on papa peut pas la maire avec ses kon bu ñuy demee tey ba nga xam ne loolu am na dafay renforcer offre bi ndax tey jii je le disais à mes amis de la RTS les contextes on changé te bii Bassirou Diomaye Faye door falu li ma ko njëkk a ñaan dama ne maa ngi koy ñaan daal président ci yar ak teggin ligne éditoriale RTS bi changé ndax jamono moo ko laaj ndax tey loo xam ne RTS daf ko bëgg a censurer mais soo demee ci réseaux sociaux yi da nga koy gis man démb naa démb demoon naa ci benn manifestation mais manifestation bi gis naa fa sans limite gis naa fa yeneen euh, organes yi fa nekkoon mais ci saa si foofu yow ngay toog ci biir salle bi di xool nii di tijji di gis mbir yi kon loolu boo jógee foofu tey benn télévision daf koy censurer mais li nga bëgg a censurer mënatul ne kon mhm. àddina dox jamono di dox donc loolu bu ñu yegsee ba tey ñuy vivre lii muy renforcer démocratie parce que presse dafa nekk pilier buy renforcer démocratie dañ koy sant yàlla. Mhm. kon loolu dama koy nuyoo koo xam ne tey suñu rakk la suñu jarbaat la suñu xarit la mu ci def euh, liggéey bu rafet ba pare feggoo koo xam ne aussi Pape euh, Ousmane. Mhm. Euh, ma yàgg la seetaan gis professionnalisme gis rigueur bi gis yar bi parce que xam nga journaliste am na ñoo xam ne dañu accepter d'être impertinent. Mhm. déedéet jaru ko parce que nit boo ko woowee ba mu bàyyi ay soxlaam. ci kaw yar ak teggin. wax dëgg yàlla boo ko ci wooyee ba mu ñu wuyu si la ci am na ci loo xam ne jarul nga ci yegg moom parce que mel ne euh, day nuru leneen. Mm. ba tax na ci kaw yar ak teggin mën ngeen séq débat lu ci nekk euh, wax dëgg yàlla dina la ko nangul man am na jëmmi jamono loolu xewoon na sax euh, biir RTS bi télévision nationale ay Habib Thiam ci comprends ay président Lamine Diack ay Serigne Lamine Diop Keba Mbaye kilifa yooyu yëpp amul ku ma ci émission. mais kenn ku ci nekk su ma def ak émission parce que comme bàyyi nga ci man. Mhm. su ma ñëwee ci kaw yar ak teggin dinaa la waral li ma la war a laaj te du nekk lu impertinent. donc nit mën nga provoquer mais dans les règles ndax yar ak teggin ci la lépp. sosu bu loolu rek xam nga bu ñu yeggee ci loo xam ne dafay xaw a lu mel ne gàtt sa gàtt sa rek. jaru ko parce que même jabar yi ngay sëyal sax ci biir néegu sëy ci yar ak teggin ci ngeen war a séq lépp. Mhm. parce que retour en zone. dañ koy wax de day am ci sport <laughs> mais am na ci ñoo xam ne sentimentalement duñ ko mës a nangu parce que góor ak jigéen ñaari rapport yi lañ mën a seq mm. amical ou sentimental mais quelle que puisse être la nature du rapport sur le charme est rompu rapport s'effrite mm. donc rafetal ci biir néeg sëy rafetal ci pénc mi rafetal ci lépp dafa am solo ki gën yàlla rek moo ko xam Ousmane ndax di nga sukkal ak raamal ak nit parce que fekk dañ fi joo xam ne ginnaaw rasulilaay mi gën ñëpp te suñu boroom a ko wax am ay xalifaam Ababacar Omar Ousmane Aliou bi ñu làqoo ba léegi ñu fekk ci loo xam ne aadala ci biir réew mi te soo ma maam ju baax ji murid ak xanay wax ak yéen Seydi Hadji Malick ne Sénégal diine du fi mës a daan aada di gis nit sukkal nit raam man may ñëw di sukkal aram di ko raam jàpp ne ne wala mu man ma jàpp ne moo ma gën a sell te xam nga ki koy sukkal ak raam boo moytu bu njëkkoon suñu borom sax moo këpp cër kon nag Mhm. waxtaan bi dama doon nuyoo ñu ñaan yàlla lépp nekk ci yoon ndax ki ngeen woo muy si la hmm. dégg naa présentation arab mais benn mbir rek laa mën a wax de lu ma wér la hmm. benn bi ci njëkk mooy jullit axtan laa bëgg a nekk bi ci des ba ma jàppee ne yàlla mi nga xam ne moo ma sàkk ne rasulilaay moo gën ci jaam ñi taalibe sëriñ tubaa bu wér laa bëgg a nekk hmm. ndax sëriñ tubaa mi nga xam ne euh, muy sama wasila dama bind ci njàngam mu ne wajaxtu kulli lil wadoodi samati saaxitmati lil Moustapha Muhammadi moo tax su may xalaat mbiru Sëriñ Tuubaa dafa may yéem ndax li muy bind dafa yéeme mais li mu wax rasulilaay ba am li mu am yépp kon li suñu borom di wax rasulilaay est le condensé de tout les grâces plus de 1400 ans mu dem ba ci aj gu mujj gi kon ku yow bàyyi sa bopp ak sa borom. Mhm. waaye gis nga dimension intellectuelle envergure yëpp itteelu ma xam nga lu ma itteel nekk taalibe Sëriñ Tuubaa bu wér nekk jullit ak ah, na lañu ko yàlla defal amiin allahumma amiin kontaan nañ bu baax a baax Pape Ousmane <laughs> waaw ah ma nuyu la ma fay la tey moom moom la ñu am gis ni mu nuyoo xam ni euh, on sera servi et je pense que même ñi ñuy bàyyi xel tamit duñu réccu parce que ñu dalal ko fi moom yàlla dogal na daa fekkee te dafa solo tamit fi ñu toll ci contexte bi. Mm-hmm. ñuy jox la parole ñi nga xam dañu fekkee woon démb. mën également delloo si ñu waaye aussi dañu ànd ci waxtaan bi comme ni nga ko waxee li nga xamante ne moo fi nekk ci pénc bi ñu xool nee su koy jàngatee mais ñu ngi lay gërëm bu baax doyen am mbégte bu yaatu. vraiment di la dalal c'est une première am ñu am ko sur sans limite euh, ñu daje sax jotaay bi am moo tax ñu am ci mbégte bu yaatu surtout sax que ni. moom sunu sunu nayen la mhm. donc sànq moo tax ma la wax naan la wu xam naa tey dina wuuteeg yow ah parce que <laughs> day wax on va comprendre aisément que ni suñu doyen lañ dalal waaw ah, ñu ngi koy ziaraat beneen yoon di ko nuyu bu baax yow aussi di la nuyu di la ziar maa ngi lay fay alors ñu euh, ñëw ci li nga xamante ne moom laa doon wax sànq ci ndorteel gi gis nañu ne euh, cent jours président euh, Bassirou yi mat na ba mu dugg sax ci li nga xamante ne mooy ñeenteel ba ñetti weer yi jàll am nañu nat gis ne la mu def des na ñeneen jàpp ne rupture bañ doon woote sax ak doxalin bi nga xam ne moom lañ gis matul boo doon natt tey di apprécier li nga xamante ne jot na ko defagum ci bopp réew mi ak yi nga xam ni jël na ko comme ay mesures lan lay doon. waaw man de bu ma doon natt wax dëgg yàlla te di ko teg nag ci lu dul fulla ak fayda ak jom ak euh, li nga xam ne yàlla suñ borom noonu la ma sàkke mooy li ma gëm lay wax. dama koy jox wax dëgg yàlla not boo xam ne not bu positive lay nekk ndax dañ ko commencé def aada cent jours mais loolu dafay mel ne rek euh, dictature de la pensée tegul fenn reposé wul ci benn donnée bu scientifique parce que ci téeméeri jour ñetti weer mënoo cee def bilan leen rek mu nga mun a def définir ay orientation fixer la cap cap bi mu fixé nag képp ku nekk ci réew mi da koy rafetlu ndax ci ñetti weer yi def na ci loo xam ne lu ñu mën a rafetlu la muy ci wàllu pêche bi napp gi muy ci wàllu mbay mi ndax fekkoon nañ fi bor bu rëy muy ci secteur bu nekk rek ba ci foncier bi littoral bi lu ci ne jéem na ci def lu nga xam ne wax dëgg yàlla pour réew mi def ay ay jéego xam nga bu ma delloo juste ci avant cent jours yoo xam ne selebre nañ ko ndax sama benn mag sama benn xarit di nekk kàngam ci presse bi parce que tey quotidien yi nekk la place moom rek parmi les gens de sa génération moo ci tenir bosam ba léegi parce que jamonoy presse bi amoon na les quatre mousquetaires moom témoin moo ci des Sud Kafar ak euh, ak euh, Walf ñoom la woon muy Mamadou Oumar Ndiaye mu nekk sama mag boo xam ne ñépp xam nañ sama diggante ak moom presse bi amul ku ko ci dàq bind tubaab amul ko ci ba fit hmm. mu mësuma jël jàpp na comme rakkam dafa wax ne Abdoulaye Fofana sekk man damay xaar 100 jours yi pour bind mais xam nga sànq ci njëlbeenu wax junj naa loo xam ne sama maam ju baax ja Seydi Hadj Malick moo ko waxoon mu ne Sénégal diine du fi daan aada waaye tey loolu ñu bëgg indi rek def ko tegawul ci dara mooy ñetti weer kenn mënu cee natt dara. mais fan en amont bu ma ñëwaatee. fan la 100 yi jógee avant ñuy de waaw 100 jours yi mu jógee xam nga dañuy jékki-jékki rek Sénégal bëgg a jël loo xam dañ ko def aada rek def ko nattukaay mi ngi mel ne le fétichisme des mots te booy xool amul benn valeur historique wala benn valeur scientifique boo xam ne mën na ko justifier hmm. dañuy jékki-jékki rek xam nga peuple sénégalais li ci particulier mooy souvent wolof yi dañ koy wax xamuñu ki tooñ ko fayu la ñu xam boo mbébétee benn mbir wax ko souvent ñu ci bari dañu xool ndax li nga leen di wax ndax war naa ma ne wala mënu nekk mais avant ñu koy saytu bay def jàngat bi comme nous sommes un peuple émotif comme disait Léopold Sédar Senghor mm. il m'est arrivé un jour journal télévisé ma ni je ne pourrai jamais accréditer la vieille sornette de Senghor qui veut que l'émotion soit nègre et que la raison soit hellène te Senghor ponkal la waxuma dimension politique bi mais dimension intellectuelle bi donc c'est bien que souvent Euh, boroom xam-xam yi di gëstu ci yoo xam ne dañ koy sànni ci pénc mi xool ndax am na valeur scientifique boo xam ne war na ko mën a justifier en amont président avant loolu dalal na ay organes. waay su ma defe naa juróom ngee juróom la ñu woon. juróom benn juróom benn. yéen ci ngeen bokkoon. RTS si la bokkoon. jour boobu sama rakk sama jigéen sama xarit Aram bokkoon na ci ñi ko doon interviewé. man bi ma ko xoolee xam nga boo nekkee nitu télévision gis ni dox ci télévision communication bi muy def adresse bi muy def dafay am forme am fond forme bi dama gis président la république bu ànd ak yar hmm. ànd ak teggin ànd ak dal ba sax am na question yoo xam ne gis naa ñu koy posé ki koy posé ak ki koy modéré sama jigéen Fatou Sakho ca RTS am na ci loo xam ne télévision bi da ko doon wone nga xam ne télévision dafa doy waar ñëpp di ko gis mais toujours Bassirou Diomaye fay di ànd ak dalal. Mm. ne tekk te pourtant muy njiitu réew mi. su ko neexoon wala jikkoo su ko neexoon mais lépp ci kaw yar ak teggin donc tey gis nga télévision toujours nit ki bëgg a les esprits mooy ki gën a ànd ak dal xam nga communication télévisuelle yow damay wax koo xam ne nitu télévision la. dafa am ñetti phase hmm. euh, fascination oui. maturation saturation xam nga aram su nekkee nitu télévision ni bu génn ci mbedd mi ku ñu jógee gis daf lay fasciné suy wax ni boo koy seetaan daf lay fasciné fascination boobu nag da koy exercer ci ay nit léegi fascination bi day dem ba yegg ci seuil maturation après nag bu weesoo loolu rek day saturé wu moo tax souvent ñu naan la soo xamee télévision dëgg wala nga xam audiovisuel dëgg doo nangoo latte parce que ta parole ne va plus porter parce que su fekkee ne fu ñu la wongu wujji rek da ngay jékki-jékki rek boo na yul rek dañu lay sappe parce que léegi dafa bari kenn dutul sonal kenn parce que tey boo yëree nii sans limite neexu la rek nga dugg faneen dugg faneen dugg faneen donc loolu boo ko xamee da ngay xàmmee ràññeeka ba say wax nga koy contrôler ba pare bañ a bañ a bañ di xaabaabal ba pare bañ a donc su may ñëw ci communication boobu forme bi lu ci laa nekkoon dafa rafet ba ñu gis buur boo xam ne xam nga Sénégal soo dalee doo yóbbu seen fit dañ lay sopp donc bi mu génnee ci communication man gëm naa ne tey su amoon fukki nit ñu àndoon nag moom am na yenn fukki yu ci yokkaat donc loolu mooy dimension bu njëkk bi. mais boo nee dans le fond dans le fond nag après li mu wax délivrer ko mu jëm ci tey 100 jours yi ñuy wax nii tey. Hmm. xam nga boo xoolee ci secteurs yi ni ma ko doon waxee.